commando bu ngeen wax commando man ngeen waxon da ngeen di jor ne commando man ngeen waxon da ngeen may japp man mii ma wax ne man may bandi bi man ma leen di daane te moom waxon ngeen ne da di ngeen japp jàpp da dafa fossé boobu ba léegi chaque chaque fois ngeen jox ma tat ma xaar ko du ñew bu bu may commencé da ngeen won octobre nañ ma jël si ma xaar octobre ba waxe ñëw leen ngeen ne ma novembre ma xaar novembre ñëw ngeen ne ma décembre moom di ngeen ñëw ma xaaraat leen saa moo tax xaaraatuma leen ngeen dama février ma xaaraat ñëw leen ngeen dama mars ba tey jii ñu ngi avril ay waay leen doon nee naa leen seen bàyyi Macky Sall mënuma bougé fu ma toog maa ko ëpp doole nee naa leen du bu ma leen ko waxee yàgg na te tey maa leen dulloo yéen ay ñoom Jibril Waar ak ñëpp yéen a nee naa leen dem leen du ma sénégalais du du ma euh, Ousmane Tounkara maa mun seen bàyyi Macky Sall maay bàyyam yéen boole yéen seen gouvernement Sénégal maay seen fu ma toog may te maa ngi man mii maay bi man maay bandi bi man maay bi ñoo leen jàppoon ngeen bàyyi innocent yi ngeen di jàpp bi fen la ko tëj ngeen moom ne euh, le pouvoir dafa fort ay le gouvernement ay l'état est fort da ngeen di tuul man maa gën a xool seen état seen état du dara sànqal nañ sama kanam dama koy jox dama koy joggi kat mënuñu leen ma ko boobu ba léegi seen dat yi ngeen jox yëpp duul da ngeen a fen a fen fen bu mujjee noppi man moo joxut leen ma dat kon après xam ngeen ni man kaani la xam ngeen ni man ku du kaani la kon xam ngeen ni man du ma lem du ma lem bu ngeen di wax xam ngeen loolu xaji day doo leen dara muur innocent ngeen yóbbu ak ñeneen ak ñeneen naa ñëw waaw man mii man maay bandi ñëw nga jàppoo lépp luy tàkk-tàkk man maa ko piloté. griquet almet pënë essence taal chaque jour moo voté insurrection da ay taal leen man maay piloté lépp luy tàkk maa koy piloté ba leen mu ne daal ñëw leen ci man waaw. ku dul mooy taal Sénégal man man maa wax te maa koy piloté. ati léegi loolu mun man daf leen acte daf leen effort. xaj yi tey dañ ko mujjee lem toog ay seen baay maay band bi band bu ngeen di la. soo ko tax ci biir sëñ te mu nga seede ni xamul sax Ousmane Sonko. wallaay xam naa su ko gis dina saa Moodu ndeysaan ndeysaan ndeysaan Mourou kay mu ne Mourou Mourou boo doon xoolee parcours am yëpp Mourou jàmbaar la Mourou liggéeykat la Modou ñafekat la Modou bëggul chômer Modou bëggul toog au lieu ñu ko ay mbay Prodac vingt neuf milliards ñuy jël ci xaalis boobu financé ko wala ñu financé ko ci financement euh, des jeunes moom ñu dem takkal ko ki nga xam ne xoolal booy naankatu ataayaa ni Ndakaaru Ndiaye Jal Diop toog ci bopp ko ja di ko lewal premier deuxième troisième trois noonu mooy dóor doxaan faatu doxoon doxaan binta ko Aminata euh, euh, fenn ji Faatumata ñu romb leen dem fekk benn guerrier boo xam ne financement la soxla pour taxaw ba mairie bu Ziguinchor sax daf dem di daggi fleur lu ne lay def ndeysaan fépp de de de Bignona du moins daf fay dem di daggi ay gazon di di wut lu mu non jàmbaar ñu takkal ko sosal ko téeñal ko jiñ ko loo xam xamul naa rien à voir de ça ñu jël ko jël dugal ci kasa ba romb fàqamaan yeeg taxawaalukat yeeg ay ki nga xam ne Jérôme Bandiaky yor classe ni ko dàq ji ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Euh, comme comment dirais-je euh, euh, waa di ko di ko jéem a téye ñu bàyyi fa Jorom Bandiaki moom ak seen yi nga xam ni Dame Mbodj <laughs> Jorom Bandiaki ko doon rey ji ñu ñu bàyyi leen fa moom classe bi ko fay doxantoo Jorom Bandiaki waxoon naa leen ko classe bi ko fay doxantoo biir Ndakaaru voiture di téere ci nit yi ay ka oto gis ngeen gis ngeen 4 yo bu ñuul bi bu ñuul kukku bi tam nekk tam tam kàrkaar boobu moo ñëwoon sama kër Moustapha Diop déglu leen de waxoon naa ko de fàttali ko leen bu baax Jérôme Bandiaky waxoon naa leen waxam ne moom moo rey Fulbert Sambou ak Didier Badji bokk na ci ko rey Jérôme Bandiaky ci boppam ñoom ñoo attaqué suñu kër boobu fekk na moom ma attaqué Jérôme Bandiaky attaqué yi tàng claté ko fii ko Jérôme Bandiaky bokk na ci ñi ñëw sama kër di taal Moustapha Diop c'est les mêmes personnes Jérôme Bandiaky kii maa ko fi siwal yàqate ko kii ngeen di gis nii affaire bi metti ko loolu Jérôme bi li ma ko def def defoon fii siwal Jérôme Bandiaky bii 4-4 kukk bu mu yarewoon 4-4 bi bu mu ñëwee mu ngi nii mooy kii kii Jérôme Bandiaky la moo nekk nii même chose Jérôme Bandiaky kii kii mooy waxoon leen ñi ñoo rey Fulbert Sambou moo rey Didier Badji ak kanam Jérôme Bandiaky bii mooy def sale boulot APR yi ñoom ñoo rey lii moom moo bëggoon rey Dambot Jérôme Bandiaky 4-4 même 4-4 bi bu ñuul boobu waxoon naa leen ñi ñëwoon sama kër di ko taal Jérôme Bandiaky Moustapha Diop bi moo yor euh, ministre des moyens et petites entreprises moo ko fay ak kanam ñoom ñoo sama gàlle taal ko même 4-4 4-4 ka 4 noirs parce que gars yi enquête yi dem nañ ba xam lépp mais ñi mën ko wax ay boy yu nekk ci biir enquête bi ñoo ma ma moo laa bëgg nga xam ku taal sa kër man leen waaw ñu ne enquête gars yi google nañ ko dañ ko sànni fële man la ñu ne ma sa kër 4-4 bu ñuul kukk fa ñëwoon L200 4-4 bu ñuul kukk moo fa ñëwoon ki leen kan la Diop ak Garam Jaram di def somme ñoy attaqué ñoy ray ñoy tiire ñoy taw ki même chose Jérôme bandé ak ag bu ngeen leen décimer toute une famille ñom ñoy dama attaqué ki di daam mooy te dinañ rey ak kenen dinañ jéem a kenen keneen buñ jotté Ousmane Sonko dinañ ko rey buñ jotté Jérôme Bandiaky bi bés bu jotté Ousmane Sonko ni mu def ba rëcc sama famille rëcc yalla di ma ba daam mooy rëcc noonu dinañ ko def ba jéem a Ousmane Sonko te bu ñu né bés ki leen ñuy téye Ousmane Sonko Jérôme Bandiaky lii moo koy tiire bu amee fetal daf leen jàpp ci ay classe ni ko moom oto boobu 4x4 boobu noonu euh, l ci ginnaaw lañ doy bële ba mu ñu takk ko Jérôme bii ñu ñu quitté Dakar kaw la ñoo taal sañu kër Moustapha Diop ba leen financé ak gouvernement bi parce que gouvernement bi la au ñu war leen jàpp ñoom ñu ngi nu mu leen neexee ñoom ak sa sa lieutenant def Dakar Far West di taal kër jàmbur yi di rey doomu aadama yi di di assassiné doomu aadama yi ñu bàyyi leen noonu dem di jël ay tàggkatu fleur ay ay defarkatu gazon ñoom la jël tëj ci kaso yi peuple bi ne tekk mais nag li ñu def ba sama famille rëcc dàmboo ñu rëcc dañu ci rey boo leen di déglu laay waxoon naa ko bu ma waxee kii ne la Jérôme Bandiaky la mi ngi nii message baa ngi nii mom ko waxee ko xeerum bàncake la léegi la gis gaay yi si ko xam nga man moom <laughs> euh, yalla dafa ma def ma ma yàgg ci système bi ma ma système bi daa buma ma wax len dat dat ban laa wax la la wax euh, euh, feuse Fat may feuse feuse Brown ni ci waxtan ak ni waaw ma wax len dat buma len ma leen bu ma leen wax ne Jérôme Bandiaky la buma gisé photo bi tël la ne Jérôme Bandiaky ni nii ma ah wallahi alazim ma ne ko Jérôme Bandiaky mi ni le 19 mars 2023 laa wax ki nga xam ne mooy First Brown génne photo photo rek moo génnoon ma yónnee ko ko ne ko Jérôme Bandiaky le gars qui a tiré sept balles réelles sur la voiture de Dambour moom laa leen doon wax moom mooy sniper bi ma dugaloon photom le sniper mu ne ma sii mosoon ngaa dugal photom ci problème ñoom Didier Badji ma ne ko walla Jérôme Bandiaky mi mu ne ma Sénégal léegi ay assassin la bari non chaque jour rek ma gën a sori gaal seen ndax découragé billaahi waxtaan bi maa ngi ko def le 18 mars le 18 bañ ko defee ba photo bi tàkk man Jérôme Bandiaké yi nii oto baa ngi nii tàkk a jox ko waale man bëri dem laa gis ku nekk tasaare Jérôme Bandiaké Jérôme Bandiaké Jérôme Bandiaké ma def teg xam lu ma xam man dama dëkk lii barki Seydina Muhammad lu ma fi xam lu ma xam ci dëkk bii cëy lu nekk sama bopp bii tey bu ma ko waxoon li ma xam ci réew mi tey li ma xam ci plan yi tey li ma xam ci toogin beeg waxtaan bi réunion nocturne yi barke alxuraan laa wax na loo xam ne bu ma ko waxoon fii billaahi wallaahi wa taalaa yi nit yi yenu seen nopp taw lu bari laa xam daf tekk di xool di ràññee xam lu bari ci réew mi daf tekk tekk rek tekk rek ku ne tekk tekk woon la yoon nañ dem rek nañ dem rek ñoom ñëpp lañu rey ñoom ñëpp lañu rey te pourtant te pourtant lu gën a garaaw Dame de ba léegi gisu leen Dame Mbodj yooyu yàpp bu koy def dee te pourtant gis ngeen Jérôme Bandiaky la ak gàngam ñoom ñoo ñëwoon sama te ba léegi Dame Mbodj yooyu moom mii principal concerné ñu bëggoon koo rey ba léegi yooyu yàpp yi mi ma wër di rajo yeeg ratatati ba léegi waxul ne Jérôme Bandiaky ñi ñoo ko nit ñi moom nag Jérôme Bandiaky yi nii ñëw ba léegi ñëwul taxaw wax ñëw dañ la doon rek Sero Mbacke gi bëggul woon rey de te la doon menacé bëggul woon rey prochainement da lay rey prochainement da lay rey Sero Mbacke gi di sniper def na armée de def na armée du sniper nag mooy def na armée xam ne ni ñuy bu la bëggoon rey na la rey ku dóor ku wàcce bëna tël bëna bu naaw dóor ay bal ci biir ba la bëggoon rey da lay dóor la koy chargé set ku yooyu waroo koy chargé nga dee intimidation la ak nu ñu lay wax ci mayen que ñun Sero Mbacke gi ñu fi def na arrêt xam na ñuy téere ku jël kii xaw bërëbu woon rey da lay rey ku dóor sept coups sa bu yu ratewul sa biir oto bërëbu woon rey da lay koy dóor ci bopp roose la ko dem yoonam menace la am fu muy wax yow noonu la def sama kër sama kër noonu lañ ko wëralee taal te xamoon ne mënuñu rey le 18 laa ko demal laa a da da nga génn rek ma ne sama mbànjaki la barke alxuraan dóor ci coté l' état sànni leen forom bi ne la hey Jérôme Bandiaky moo bëggoon rey gars yi ne hey man Mollah foo xëyee ma leen ok ok xam li ma xam lépp jël ay information lépp xam ñu ko yónni xam ñu ko xam fu ñu jógee parce ci boppam laa ko sànni information ko dóor whatsapp fop xam naa ki yónni xam naa yu yabal xam naa ñii ñoo ñëwoon sama kër xam lépp ñu def teg déglu xool ba léegi tontu ma waxtaanu muuma la tax ma jënd jàpp ma lu ma xam ci dëkk bi barke alxuraan ma waxoon dëkk bi tàkk dama def tekk xam lépp papi def moom di xeex sama façon xeex te xam naa ne amul kuy wax fii si kaw te média bii ku état bi di gën a déglu ko amul ku ma ku état bi di gën a déglu puisque man ma ñàkk sama ndey sama waay kon yàlla bu sama woor koor gi dagan amul kuy wax ci média kuy wax Sénégal ku ñuy gën a déglu ko man amul bu ma àdduna yëpp baayoon média Sénégal ñoom gouvernement dofuñu xam nañ kuy jël seen information xam nañ seen information bu réel fu ñuy xam nañ ñuy waxantu xam nañ ñuy waxantu ak ñuy yor seen information dofuñu xam nañ ku ñuy bu baax xam nañ ki kiy wax seen i mbóot bu fekkoon da ngay dugg fii di wax li nekk ci biir kër ki ngay wax ñi nekk ci biir kër xam nañ kan la ñuy gën a déglu kan gën a bàyyi xel parce que xam nañ kii moo yor seen information moo tax man ay yenn waxantu nekkuma ci avion jóge na fii jël na ay nit dem na yóbbu fee kii taw na xaalis bi man doomu mës dégg ci genre idéologie yooyu du ma mës a laaj di wax yooyu parce que man li ma du ma waxantu waxantu laa mënul wax loo xam ne après mu de déedéet moment bu ñu wax nañ ñoom daw nañ man dem naa vérifier ne ñu ngi seen biir kër yi toog ma ñëw def tekk xam ne ñu ngi seen yi toog ba léegi waxuma daw ne parce xam naa ne Idrissa Seck laa gis mu wàcce John Fitzgerald Kennedy sol benn jaketam et tout ça ma ak ñu jox ma ko ma ne kii day dem mi fenn ñu ngi seen kër yi ba nit ngi nekk seen biir yi xam nañ ko bu baax bu dëkk ba wër ngoo woon dem seen yoon moom la ginnaaw sax gouvernement bi ñoom dañ may bu baax te li may def nii information yi tey su balaa ñoo tëdd ñoom ñëpp dinañ ko déglu ñëpp dinañ dugg ci YouTube bi dem déglu ko ñii dugg ci Facebook ñëw déglu lépp xam lépp sometimes ñu dagg samay affaire sax sànniwaat ma ko ñoom di ma woon yaa ngi woote appel à l'insurrection yaa ngi nangam mais man faale wu ma leen saa su ne ma yor seen i seen i seen i message yoo xam ne sama live dañu dem jëli dagg ay affaire ñëw jëlaat sànniwaat ma ko Facebook wala ci ay WhatsApp yi ma xool te naa ne ñoom la parce que on se wax par geste. man ak ñoom geste la buum ma def ñu ne ma appel à l' insurrection bu ñu tàggatee sànni ma ko ma déglu xam ne ah dañ ma bëgg a wax ne yaa ngi woote appel mais ñi ma wax ak man génn yee génn toog ñu gën a jàppale bu baax baaxum yow laa wax góor jigéen bi na nga doomu jàmbur yi fenkat bu mag nga sos kan mbokk yi dal na jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international ginnaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene na jukkil Kawtef yi fi jot a ci kàllaamay wolof di la ñaan aussi nga dem abonné su fekkee abonné ko te bul fàttee bés cloche de notification bi pour vidéo buñ dugal nga man see jot